bonsoir asalaamaaleykum sama gars yi j'espère que yéen a ngi si jàmm man si jàmm dalee na jàmm seen seen like mobile votre chaîne de technologie tey day ñëw pour présenter leen benn astuce bu am important si téléphone muy nag kay def ba bu téléphone buñ ko sàccee yow da nga buñ ko sàccee daal di fay téléphone bi yow da nga am accès si koo def li nga xam ne moo di localisation bu fekkee ne sa téléphone tamit dañ koo def mode d'avion man nga am accès pour def ko pour pour localiser sa téléphone bi wala bu fekkee ne de ko euh, du am accès si téléphone bi pour euh, fay ko wala bu ko bëggee fay rek maanaam da koy laaj code bu fekkee ne loolu yëpp nag euh, bëgg nga xam nga ñu lay ñu ngi ñaan nga seetaat vidéo bi jusqu'à la fin bul si raté dara pour nga xam lépp lu xew si biir vidéo bi voilà léegi naka lañ def mooy dañuy dem directement si suñu Play Store voilà léegi dañuy dem directement suñu Play Store léegi ñu mën a télécharger application voilà léegi application bi lien d' application bi dinaa la ko defal si euh, si première dis euh, lien bi nekk suuf description bi boo cliquer dina la yóbbu directement si application bi pour ngeen mën koo télécharge léegi boo demee Play Store da ngay tapé sécurité wala nga def localiser même s'il est int lépp c'est la même chose voilà léegi nga def Umer sécurité voilà léegi nga dem première option bi ne si kaw voilà léegi da ngeen xàmmee logo application bi rek. voilà léegi application bi ñu ñoo ko defar humeur sécurité ñoom ñoo ko defar pour ngeen ma bañ a jaawal application bi léegi application bi di ko da dem directement installé voilà pour mën a télécharger application bi voilà muy localiser même si lay éteindre wala nga def humeur sécurité ñaar yëpp boo si bind rek dina indil même application bi voilà léegi ñu xaar application bi euh, daal di téléchargé wu euh, si suñu téléphone voilà léegi ñoo xaar application bi daal di téléchargé wu. léegi ñu xaar application bi daal di téléchargé wu suñu téléphone voilà léegi téléchargé naan application ba pare léegi dañuy cliquer directement ouvrir léegi ñu bës euh, ouvrir léegi bu ñu cliquer ouvrir léegi première option bi euh, moom da indi indil euh, ma ngi lay wax suivez votre tel téléphone maanaam sa téléphone léegi mën nga mën nga mën nga ko xool même bu fekkee ne dañ ko fay voilà. maam lii da lay indil eh, eh, application bi naka lay naka lay fonctionner voilà deuxième bi euh, boo bësee suivant deuxième moo la mën a la même buñ ko defee mode d'avion mën nga ko fay léegi boo ñëwee ba fii léegi da ngay cliquer directement fi lu bindal démarrer léegi nga dem activer première option voilà léegi da lay laaj nga ko léegi boo ko activer da lay diriger si pass accessibilité bi pour nga man a activer application bi nga xam ne moo di Umer voilà léegi da ngay def si application bi Umer léegi nga laaj koy léegi boo ko activé nga dem ok léegi nga génnaat voilà bi may commencé di may commencé wu mais commencé euh, signaler sur sa mën nga defaat retour voilà fii da da lay wax ne comme bu la envoyé envoyé notification sur application bi nga def autorisé léegi fan ngay demaat mooy option bi mu la dal emplacement voilà mooy option bii ñu leen tegal VLS bi muy emplacement moom ngay cliqué léegi boo cliqué nga dem autorisé nga béy saat autorisé voilà nga cliqué waat autorisé nga cliquer autorisé voilà léegi boo cliquer autorisé nga dem fi la bindal administrateur voilà am na option bu la bindal administrateur nga cliquer ko léegi boo cliquer nga dem act euh, nga dem fi la bindal activer cette application cette application de admin voilà léegi boo cliquer fii la lay diriger léegi man nga cliquer léegi nag euh, bouton bi mu def mu la defal flèche suivant léegi nga cliquer ko léegi boo cliquer automatiquement fii mooy tijjeeku. léegi première option bi da moom mu ngi la bindal faux arrêt léegi da nga koy activé voilà léegi boo ko activé nag da lay laaj benn numéro li numéro bi lan la lay jariñ mooy bu fekkee ne sa téléphone bi dañ koo jël ki nga xam ne dafa jël sa téléphone bi maanaam yow numéro bii nga xam ne ba ngay tëjee application bi moom si dugal bi nag ñu leen conseil bul ko def numéro bi nga xam ne moom moo nekk si téléphone bi nga utilisé def ko si beneen numéro c'est parce que ki nga xam ne dafa jël sa téléphone bi bu bu jëlee bu jëlee sa téléphone bi maanaam information yi da si numéro bi lañ la ko xamee mais bu fekkee ne numéro bi nekk sa téléphone moom nga ko def bu la envoyé si même téléphone bi la ñëwaat kan euh, yaakaar naa du jëriñ dara mais li ma leen conseil mooy ngeen def ko seen téléphone bu fekkee ne yow sa téléphone ngay nga ko def sa téléphone mag sa téléphone rak voilà boo pour bu ñu sàccee sa téléphone information yii nii day dem directement si numéro bi voilà léegi après dinañ leen wax information yi mooy lan mais comme bu ñu sàccee sa téléphone information yi naka lay ñëwee si téléphone voilà léegi boo choisir numéro ba pare léegi mën nga def tur bi voilà léegi nga def bi léegi def nga sa numéro exemple def nga sa numéro rakk ba pare léegi da def turam nga def like mobile voilà mais numéro bi nag euh, bu la neex tamit mën na nekk si bu mën mën mën na nekk numéro bu la neex mais li leen conseillé daal mooy bu nekk si téléphone voilà c'est information yi dañ la koy envoyé si numéro bi léegi mën nga ba soumettre def nga numéro bi daal def tur bi léegi mën nga cliquer fi lu bi dal soumettre voilà léegi boo cliquer soumettre léegi nag bu la neexee mën nga demaat si plus bi nga dugalaat beneen numéro bi nga xam ne moom nga choix voilà léegi euh, bu boo génnaat léegi yow da ngay dem activer option bi mu la defal foo arrêt voilà léegi yow boo activer faux euh, option ba pare léegi parfois da lay indil page bi léegi mën nga cliquer yow directement ouvrir voilà euh, maam mën nga cliquer directement annulé léegi boo ki annulé nga dem cliquer fi la bindal ignorer voilà léegi yow sa téléphone bi nag maam fii da lay jox exemple léegi yow téléphone bi boo ko fayee comme que ñun téléphone bi si la ñu enregistré vidéo bi moo tax buñ koy fay yéen du ngeen mën a gis du ngeen du ngeen ko mën a mais boo ko fayee nag ma wax ko pour nga talaaj ko il faut que da ngay jël sa chargeur chargeur bi nga xam ne moom ngay chargé téléphone bi léegi nga branché la ko si courant bi léegi nga jëlaat chargeur bi daal koy branché la comme si que yow kuy chargé ba boo ko chargé rek automatiquement écran bi dina euh, voilà dina tàkkaat nga dem tijjiwaat sa sa sa ko mais nag bu fekkee ne yow téléphone da da da la indil option bi boo ko fa boo ko fayee voilà maanaam ki nga xam ne da da koo fay maanaam bu ko fayee pare euh, noonu muy tàppiwaatee pour taal ko maanaam heure bu cliquer pour taal ko dina ko envoyé benn benn photo comme exemple sa sàcc bi bu ko jëlee ma bu ko essayé di ko maanaam. Euh, téléphone bi da koy photo maanaam noonu mu koy photo nag numéro bi nga xam ne moom nga dugaloon euh, si la lay envoyé photo bi nga xam ne kooku moo jël si téléphone ak fi mu ko jëlee ak sàcc bi kan la voilà lépp dala dala euh, dala koy envoyé voilà mais instant bi suñu téléphone maam fay fay nañ ko ba jël suñu chargeur ba branche la ko ba branche la ko si voilà léegi boo ko branche automatiquement léegi day tàkkaat léegi bu tàkkaatee nag voilà mën nga dem directement si sa message voilà comme téléphone bi nga xam ni moom nga euh, si nga envoyé woon euh, si si nga si comme numéro bi nga xam ne moom nga tapé woon bi ngay tijji sa application voilà léegi si numéro bi si la lay envoyé message voilà léegi message moo nekk nii léegi. Euh, da lay envoyé sa batterie bi ñaar pour cent moo si des envoyé la photo yi envoyé la lien bi nga xam ne moo mooy localisation ki nga xam ne moom moo jël sa téléphone bi envoyé la ay ay ay ay ay photo voilà instant bi euh, lien bi mu la def photo boo cliquoon directement sa ki nga xam ne dafa jël sa téléphone di tenter xam nga euh, ku jël sa téléphone am lu muy njëkk def mooy fay bu ko fayee tamit mën na essayer di nga taal mais bu koy taalaat bu ko mën a taal. en plus téléphone bi da jël ay photo léegi photo yooyu nag yow da la koy envoyé si numéro bi nga xam ne moom nga dugaloon ba ngay inscrire sa application bi yaakaar application bi dina leen euh, dina leen intéressé voilà léegi nag euh, boo cliquer automatiquement da lay euh, da lay wan photo yi wala wala wala localisation localisation bi nga xam ne ci la site bi nekk léegi bu la neex tamit mën nga dem deuxième option bi nga activer mode d'avion pour ki nga xam ne dafa jël sa téléphone moom bu ko bu ko defee moo defee tamit yow di nga mën a ab accès pour localiser sa téléphone léegi da nga bëgg sa téléphone ku ki nga xam ne da ko jël du ko mën a fay heure bu koy bëgg a fay rek da ngay laaj code lan ngay def da ngay dem si logo paramètre boo xoolee si trois options am na fu mu la defal paramètre léegi nga def fi mu la bindal foo arrêt voilà léegi nga cliquer foo arrêt léegi fii la lay indi léegi ma ngi lay defal demande un code PIN voilà léegi da ngay cliquer fi mu la bindal demander un léegi yow nga dugal sa léegi boo dugalee sa code mu laaj la nga confirmer ko léegi boo confirmer automatiquement léegi bu la neexee tamit mën nga si def sa email pour mu gën ko sécurité voilà léegi boo ñu dugalee suñu email ba pare léegi da ngay activer demander un contenu léegi nga def demander voilà léegi ki nga xam ne dafa bëgg fay sa téléphone bu ko bëggee fay automatiquement téléphone bi da euh, maam danaan ko mënoo fay téléphone bi c'est parce que fekk tijjoo code boobu noonu rek doo ko mën a fay. léegi nag comme ñun téléphone bi enregistré euh, si leen si leen utilise application bi moo tax bu buñ ko bëggee fay rek euh, maam écran bi day day day day day noir maam duñ mën a gis euh, code bi nga xam ne maam maam duñ mën a gis téléphone bi nga xam ne ña nga fay ñu mën a génneel code bi même bu fekkee ne mais bu fekkoon tamit yaa ko utilisé sa téléphone voilà da nga mën a gis code bi boo ko bëggee fay da lay demande code fekk dugal code bi maanaam sa téléphone bi. donc ko mën a bay léegi loolu ma doonoon vidéo bi ñu leen joxaat euh, rendez-vous ñu leen joxaat dig daje beneen astuce ak si beneen vidéo ak Like Mobile n'oubliez pas de vous abonner merci